def na ko kon liñ koy ñaanal rek mooy fa mu jëm mm-hmm. ah suñu borom teeru ko ci teeru bu gën a rafet waaw te xam naa ne jàmbaar la àdduna moom la ko ci waroon def na ko mm-hmm. waaye yàlla moom ay mbiram uh, nii lay demee mm-hmm. waaw di sant bu baax di wax benn dot bu ndaw uh, Gaston doon na doomu aadama boo xamante ne Alaaji Mansour Mbaye laa ciy jël comme seede mhm. am na anecdote ñu bare dañ doon séq ma ak Gaston te xamuñu woon lan la ñuy séq man nag moom dañu yaakaaroon animosité la mhm. mais ma wax la tey benn anecdote mhm. Alaaji Mansour mbay mu may dégg ndax moo ko fekkee moom moo toog Gaston woo ma téléphone may tëgg euh, Bombardier ak Yékini mu ne ma nañ daje sama boutique ville li ngay sol man maa la ko bëgg a jox. ma ñëw ba ville foofu jour boobu moo tax ma ne la âge Mansour Mbaye moo fa nekkoon ñoom ñaar kase man moom ak yàlla. costume bi ma sol jour boobu muy rayé boobu Gaston moo ma ko jox. kon xam nga bu doon animosité am na. du ma jox yére ma sol ko. kon loolu anecdote bu ma doon wax la. di gërëm ñëpp di sant ñëpp. di wax ne àdduna nii rek la. àdduna moom nii rek la euh, mooy li may wax rek nañ delloo ñun ñëpp suñu xel ci suñu borom ndax sëñ Touba ba muy dem géej di sànni der ba nit ñi géej la ñu gis waaye sëñ Touba yàlla la gis moo tax ba mu lalee der ba mu taxaw kon nañ delloo suñu bopp ci yàlla xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi Euh, di ñaanal ñëpp jàmm tawfeex sutura xéewal boo amee kàddu yooyu dénk njabootu Gaston waaye boo amee kàddu yooyu dénk ki nga xam si ni moom la jox lenge muy makkan boo amee kaddu yooyu njaboot yi yan kaddu la non kàddu yi moom lenn rek la euh, seen baay am na empreinte mu marqué Sénégal loolu avantage bu mag la ci ñoom ndax tey boo ne man doomu Gaston Mbengue laa fii Sénégal am naa yaakaar na nit ñi dina am cër buñ la jox mhm. perpétuer nag liggéey bi nga xamante ne moom la fi doon def. ndax loolu lu am solo la. Euh, lu am solo la te wax dëgg yàlla màkkaan gis naa ne jàmbaar la ndax mu ngi béy waaram. ñun ñëpp nañ ko jàppale. lii rek encore une fois day wane ne. Euh, ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay la ma ko waxoon ci dëju Pape Aziz Ndiaye rek ne ko bu la dara jaral xëccoo bu la dara jaral dara ndax la ma la wax sànq rek lépp loo gis boo ci gisee yàlla doo sonn mhm. ndax tey boo jàkkaarloog gaynde mhm. gis gaynde yàlla bàyyi laa gaynde yi waaye boo jàkkaarloog suñu borom mhm. ne gaynde yii yàlla la boo ko fa tegee rek da ngay gis ne yàlla la yàlla mooy ñëwal boppam daal di la aar daal di la suturaal mais boo gisee gaynde nag mu bàyyi la ak gaynde gaynde yi teg yow waaye gis fa yàlla rek incha allah jërëjëf jërëjëf yooyu yooyu ay kàddu yoo xam si ni wax